appel pour beaucoup plus de responsabilité lancer un appel également jëmale ko si autorités yi parce que campagne également gis nañ ni lu ñuy bund xatal ay taskat xibaar bëri na kuñ ci tegul loxo rek jàppal ni ñu ngi lay xooxatal loolu nag dafa war a daq fii ci biir Sénégal moo tax ñuy interpeller d'abord le ministre de l'Intérieur pour que euh, suñuy ndaw ñu gën leen a aar interpeller également les acteurs politiques suñu nee les acteurs politiques nag damay wax pouvoir wax opposition ba sax société civile dañ leen koy wax pour que ñoom itam ñu gën a bàyyi xel ñuy aar suñuy ndaw sur le terrain parce que yéen ñëpp fàttaliku ngeen lu xewoon Tambacounda euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak candidat bu PUR bi dafa naa ne suñu borom su si tegul woon loxoom di ngeen gis ay taskat xibaar yi nga xam ne ñàkkoon nañ seen bakkan que dañ leen a songoon euh, seen oto ba dañoo mujj accéléré daw loolu nag mun nañ ko éviter éviter ko mooy ñun ñu responsable sur le terrain éviter ko également mooy ñoom ñëpp ñu xam ni ñun suñu rôle nekkul ñu far ak ma kumba wala ma demba mais ñun c'est de mettre la plume dans la plaie comme ni ñu koy waxee maanaam fu dëgg gi ne ñu koy génne di ko jox askan wi.